ixwati alkiram asxaab almaali saadatu alulama ayuha alsaada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi te dañuy déglu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan yàlla yal na yàlla boole jégal su defem seen rajo 98 point 5 kaddu gi bàyyi koo fi ci ndakaaru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 am yal nam yàlla lu nu ñàkkit yal yàlla mbokk yi waxtu wi démb bi ñuy taqalikoo ak yéen ñoo ngi woon yéen ak Xaalid ibnul Walid mi nga xam yàlla gindee na ko lislaam ndax yàlla ku mu neex mu dugal la ci diinam ji ku ko soobit mu ñàkk la cee dugal kon njàmbaaru kenn dugalu ci lislaam yàllaay sélectionné aw gaayam di seet ñu ko neex mu dugal leen ci diina ji ñu teel a gëm waaye xaalit mii jaar na fu ne waaye gis nga rek li yàlla na ma ci moom mooy ma ngay dem di tuub di dugg ci diina ji ànd kaag Usmaan ibnu abi talxata ànd ceeg Amru ibnul Aas ñamal naa la Amrul Aas moom la mu mus ca najaasiw bi muy laata xam boppam bi muy laata xam ni kii muy xeex du moroomam kii mu contre du moroomam gis ngeen la mu daj ca kër najaasiw gàcce gu rëy ga nga xam moo ko fa dab te dara warlu ko lul xeex ku lul moroomam jël ku lul nattangoom nga def ko moroom gis nga la nga xamante ni moom la ca daj wax naa leen na Xaalid ibnul Walid keroog bi nga xamante ne waaxu na nag ànd ak Amr ibn Aas ñu dugg si Madinatu Munawwara kër Abubakar Siddiq la jëkkat jubali yegg nuyoog moom Abubakar daal koy tag tagal yaatal ko wan ko kanam gu belli mu ni ko dama gént dëkk bu lëndam këruus ma fanaan ca ca bët set ga ma génn dem ci dëkk bu leer nañ naññ nañ bëccëg bee guddi gi kenn xamewu ko ndax leeraay Abubakar Sadiq ni ko lëndamu kéefër mooy jeex ci sa xol bi leeruk lislaam moo ci niit ci sa xol bi loolu dong mooy sa gént gi mu sant lool yàlla mais mu daal ni ko ana sang bi mu ne ko sang baa ngi ci jàkka ja gaaw demal nga fekk fa gaawal gaaw gaawal gaawal ñee na ma daal di ñëw bi ma ñëwee ba jub jàkk ji ci laa yéeg sama frère walid ibnul walid mi nga xam ni moom la yonte saasam joxoon lettre ba te naa te ma joxe fa ba tuub ma dajeeg moom nuyonteeg moom mun ma ah, ñëw nga man ko waaw ñëw naa mun ko asria gaawal gaawal vite vite vite yantazirkum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yàlla bi mi ngi leen di xaar gaaw leen nee na ma daal di gaaw daal di jubal si jàkk ji ma agsee ndeysaan ay bëñam laa jëkk seen mu daal di may muuñ nee na yonent bi sallam ku rafet la woon bu la musaan muuñ la ngay séen ci biir bëñ yi day mel ne wurusu ngalam ba ñuy weex tal nee na bët weex tal li ñuy weex weex tal li ci ñuul ñuul kukk Pape Hann <laughs> ndeysaan mu daal may muuñ akolaat ma nee na mu daal ni ma ki yow la ma ne ko wallaahi man la nee ma daal sukk samp sama bëti wóom ci suuf jokk sama ñaari loxo mel na ku jàpp ci ñaar tànkam ci suuf toog daal ni ko asalaatu wasalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu jàmm yàlla ak muccug yàlla yàlla na ci yow yow diyaalakatu yàlla bi yàlla na yërmande yàlla yàgg ci yow yàlla na barke bi yàlla nekk ci yow nee na mu daal li ma fay nuyoo ci kanam gu belli ndeysaan ànd ak muuñ mu ni ma aleyka salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaa Xaalid ibn al Walid yal na jàmm yàlla nekk ci yow ak yërmandeem ak barkeem yow Xaalid mii doomi Walid nee ma ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nee ma ne tudd baati seede yi ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa na muhammadan rasulullah yàlla kenn képp la ci moom la ñëpp jublu te jubluwul ci kenn jëlewul lennam ci kenn jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla rekk yàlla maa ngi koy dëggal ci sama xol di ko dëggal ci sama làmmiñ di ko fas yéene jëfe te Muhammad yow mii yàlla la yónni ci dëgg yaay deyaale konam lu ma la wax dëgg la loo wax dëgg la sallallahu alayka ya alamal huda ndeysaan mu daal di ma jege sil sang bee baax yéen yàlla Muhammad moo tedd moo man gan moo baax ci doxandéem moo baax ci noon nee mu ni ma jege nee na ma jege si nee mu ni alhamdulillahi lazi hadaaka al inni qad ara laka man dama la gis ni rek ni kenn gënu la Xaalid nanu sant yàlla mi la orienté ci lislaam mënu dee ci leneen lu lislaam waaye nanu sant yàlla mi la orienté ci lislaam ne waada an yahdiyaka allah ila al wa saada yàlla mi nga xamante ne nii moo la orienté ci jàmm orienté la ci aw yiw ak mucc àdduna gu àllaaxira yàlla moom rekk moo jara sant nee ma ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla li man dey e, toggoo naa ay bàkkaar yu bari ndax fu ne xeex naa fa fu ne xeex naa la fa contre naa lislaam xeex naa badar xeex naa uxuud xeex naa ahzaab te mooy xandaq fu ne daje naa fa yéen ba huday bii fu ne daje nañu fa ngeen di xëcc nit ñi ci lislaam ma leen di xëcc ci kéefër te bu ma deewoon ci loolu damay dem safara te nag dem naa ba yàlla dimbali ma ma door a gëm dama bëgg nga ñaanal ma sa borom mu jéggal ma kon jéggal ma sa borom subhanahu wa mu jéggal ma fitna ak ñaawteef gi nga xamante moom laa toggoo loolu rek laa lay ñaan ne yéen bi sallallahu alayhi wasallam ni ko al islaam ya jubbu ma kaana ko naam mu ni ko bakkaar yu jëkk ba nga nekkagul jullit yu ñaaw ya nga doon def boo xasee ba dugg ci lislaam yàlla dootu la considéré yooyu dootu la ko topp yàqale bu door a judd yéen a yem ma daal di insister ko sang bi jéggalul ma sa borom jéggalul ma sa borom man xam naa fi ma toll xam naa li ma def réer rek ma jàppoon ñàkk xam rek ma jàppoon sànku rek ma jàppoon ba tey jii ma door am xalaawatul imaan gis ne lii mooy dëgg xët-xët ji ma nekk woon doole ji ma doon jaay lépp tey anamu ndeke lii rek mooy dëgg yàlla mi ma ko xamal nag moom laa koy sante nee foofu nag fi la yonent bi ay tale ñaari loxoom daan ni allahumma ixfir li xaalid ibn alwalid wa kullama awdaa fihi min azunub wa min saddin an illahi wa an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam suñu mo yon bi yàlla yëkkati loo xam ne yàlla yàlla nga jéggal Xaalid ibnul Walid yàlla nga jéggal lépp lu mu def bépp pexe bépp complot bu mu musa def ngir baare doomi aadama yi ci seen boroom dox seen diggante yàlla dox diggante da jaami yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla nga jéggal xaalit ak lépp lu mu togg ci bàkkaar yàlla na nga ko baal yàlla yàlla nga ko jéggal nee sang bi daal di gees ni ma xaalit xanaa xamoon alhijratu yee jubbu maa kaana xablahu dalal sa xel non tuub gi nga tuub waaye kilomètres yi nga daw yépp ngir du tuub day jéggale bàkkaar yu jiitu ya ak bàkkaar yu mujj ya loolu nañ ko xam foofu nag fi leen tolloon dem ma lay laaj ne tuubu xaalit gii mu tuub moom euh, ndax sañees na ko yéegal ci tuubug Omar ibnu Xataab mbaa ñu yéegal ko ci tuur ci tuubug Hamsatu ibnu Abdul Mutalib ah déedéet ñemewuñu ko xel xalaatu ko boroom xam-xam yi li ñuy jëkk jàng ci tuubug euh, Xaalid gi dañ wax ni ñàkk pexe ci la bokk ndax Xaalid bi muy tuub gis na ni moom moom dong moo wéet léegi dooley Màkka jeex na dooley waa Quraysh jeex na dooley yéefar yi jeex na lislaam a gën di am doole Muhammad a gën di am doole nit ñaa ngi koy gën di gëm te nag ñàkk pexe pexe la koo xamatul foo jëm da ngay dem fa nga jóge woon waaye gis nañu ni kon lii ñàkk pexe bu waa Quraysh ñàkk pexe amatuñu doole amatuñu pexe malgré Xaalid euh, il a tout fait bi mu duggee ci lislaam bi def na lu nekk ngir am tur te yàlla may na ko ci tur nag ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudde woon na ko sayfullahi al maslul mii day jaasi la ju yàlla bocc ci mbaram ndax day war na nekk bénéfice lislaam waaye xoolal Hamza Hamza du muy tuub di dugg ci diina ji booba Hamza amul benn intere bu lislaam am wala benn menace bu war a mën a tax moom Hamza mu tuub dugg ci diina ji mbokk ndey koy jur yéen bi sallam la ñu fekk ca Kaaba ga muy wax yàlla nee topp leen yàlla bàyyi leen midd bàyyi leen njaaloo bàyyi leen jiw bàyyi leen naan sàngara di xettali nit ñi ci menaces yu bon yooyu nga xam ni ku koy dund yàlla du la gërëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam du la gërëm nit ñi baax duñ la gërëm falak Abu Jahlin mii fekk fekk giléem gu ñu rendi ba pare mu jël mbàqu giléem gi fekk sàng bi fi mu taxaw di waaraate mu yuri ko ci kawam ni ko wal xas yaa bon xanaa lii dana la doy gàcce goo mat sëkk goo dina tax nga war a bàyyi li ngay li ngay woote soo amoon jom mbaa nga xam li ma xam di nga daw topp say maam topp say baay lii ñaw na lool daal wax daal di taxaw di ko xool nag jépp Muhammad waaye sang bi booba amagul doole boobu lislaam amagul doole boobu lislaam sañul fañu fay sañul fayu sañul def dara lépp dañ koy négocier ci suuf sang bi ndeysaan daal di wiccax bopp bi daal di daal di sëgg gis nga message boobu benn xale bu jigéen bu fekkee action bi moo rek daw mel na kuy boole Hamza ndeysaan daal di gis Hamza neew ko lii neew ko daal daan billaahi wallaahi sama xol bi moo jeex tey sama xol bi moo jeex tey billaahi doomu Abdoulaye ji xanaa kii bu bàyyam doon dund wala mu am mbokk mu baax mu ko mën a mën a protéger walaay fitna gi ñu koy teg ci digg màkk gi dana dana ko ko fajal wala man mii tey di jigéen bu ma yàlla mayoon tey ma am kattan wala ma am doole ju ma ko mën a jëlale paar billaahi tooñ kon tey dinaa ko jëlal paar ay gone gi maa yërëm waay xale bi li mu daj moo moo waaye waay ñàkk ndey baaxul ñàkk baay baaxul ndeysaan di ko wax ci façon wax yi mi ngi mel ni kuy boole Hamza ak Abu Jahlin ndax dafa fekk action bi action bi nekk action bu ñaaw mu sotti ko ko mbaq yeeg weñ yeeg ñëpp di ñelenale ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënu ci dara mu wiccax bopp bi rek ndaw si sam xelam mel na ku koy booleeg Hamza Hamza ni ko lan la mu ne ko sama xol bi moo jeex sama xol bi moo jeex Mouhamadou Lamine mii li mu def ci màkk gii billaahi bu baayam doon dund walla ndeyam di dund koo def lii mu jaay la bakkanam xale bi maa ko yërëm xale bi moo sonn mu ko lan la mu ne ko abu jahalin boo amul xisaab lañ ko tuddee moom laa fekk ca kaaba ga mu xam nga fu ñu jëlee rendi gileem gu mu rendi ba pare mu jël mbaq ga ci digg nit ñi toroxal xale bi fekk ci digg nawleem ci kanam gor yi yuri ko mbàqu gileem gi yërëm yéeg mbaq yéeg ci buri yéeg yu xasaw yëpp sotti ko ci kaw ci kaw bopp sang bi alayhi salaatu wasalaam xam sa nag daal di gis boppam ni ko anamu mu ne ko maa ngi ma ma bàyyi ca kaaba ga ndaw si jiitu xam sa topp xam sa nag wàññikul mooñu ko rek xam sa war fa sam ko moom fit la jàmbaar la woon dikk ni cëpp bocc jaaseem jubal si Abu Lahab nit ñi jóg dox dox seen diggante Hamza jaar fu ñaaw ak moom ni ko da nga ni kii baayam dundul wala ndeyam dundul moo tax nga nga sañ ko def lu nekk xam nga jëw nga ma de xam nga ne jëw nga ma de bu ma ko fekkoon naa dog sa los wi gën a ñàkk teggin yaa ñàkk teggin yaa ñàkk ma baayam dund waaye baayam a ngi dund ndax maag baayam a bokk baay bu ma fekkoon ba ngay def fekkoon ba nga def lii billaahi naa jaar sa kookoor la bi te sax li gën a gàtt te gën a gàtt mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah xam sa daay tuub dugg ci diina ji bokk ci diina lislaam bokk ci jàmbaar yi xeex yi nga xamante ne ni mooy xeex yu jëkk yi xam Hamza ndeysaan xeex na Badar wane fa njàmbaar gu mat sëkk nekk chef de guerre yore stratégie yàgg naa jot ngeen ko gis sax ci film yi xam yi taxaw bu borom fitt yi taxawee mu ne fitt leen gars yi fitt ñu wëññi ko daw ñeneen ñu dugal borom xëcc ci génn xam sa noonu la conduire combat bi ba yéefari ni wa daw bàyyi fa seen bitin ak alal ji jullit yi gërëm ñoo am ndam te xam sa moo taxawee googu taxaw Hamzatu moo rey Utba moo jur moo rey Walid Ali jaar fii di jàmbaar di gaynde boobu temps xaalis mii ñuy waxtaane ci langu yéefar yi la bokk kon booba njàmbaaram feeñul ndax deful mu baasa baarasa te reyul kenn ca at ma ca topp abi falu na màkk ndax abu jahlin lanu xëccoo te dee ca badar kon moom mooy falu ndax mooy mag moo falu war fasam dugg ci arab yi ànd ak abdullah ibnu zalul bi nga xam ne naafiq la woon te ndax dafa ne gëm leen lislaam te gëmul lislaam naafiq la ànd ak moom di influence am leen fulla am leen jom waaw parce Mouhamed mii ay pexe rek leen ëpp la waaye ëpp la wu leen dara am leen seen fulla am leen seen fayda defante leen ko moom ba mu saf sap waaw ah, defal leen tàng moom ba mu saf sàpp waaw bu leen ko bu leen ko bu leen ko seetaan xeex leen ak moom daf leen ëpp pexe rek waaye du dara di dox di dox ba ñu ba xare Uhud taxaw boobu tax Xaalid mii ci rangu yéefar yi la bokk Hamzatu mii ak Omar mii ci rangu jur yi la bokk ñu la yeex Uhud xeex fa xeex bu tàng jër xeex bu méttee méttee méttee métti njëlbeenu xeex bi jullit ñoo gañe yéefar yu bari daw fekk boo yonent bi sallallahu dafa ni na ngeen yéeg ci montagne bi yàlla def na ñun ñii dem nañ fa daaw dem nañu fa ba yéeg ca kaw ndeysaan expliqué mbokk yi naa loolu ñëpp kontaan foofu ñu taxawoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëloon Zubayr ibn Awam ñu ko boole ko cinquante soldats ni ko fii bu leen fi bu leen fi jóge su ngeen séenoon ni ñun am nañu victoire ba am ndam ba yëkkat sunu drapeau te tànk néew ma leen wàcc leen bu leen wàcc na ngeen fi taxaw waaye ndeke mbokk yi ndigal ndigal dafa jara bàyyi xel de ñuy yéeg combat bi tàmbali rek jullit commencé am ndam di tëral ci yéefar yi di tëral ci yéefar yi di tëral ci yéefar yi ba genn wàll gépp nu xet daw ña yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ca kaw ni taxaw leen fii daani combat bi jeex na te kat yonent bi woowu leen néew leen wàcc leen la mu leen digal digalaatu leen leneen ñu doog fa ñu doog rek ba yaa génn wàll gépp daal di wàcc Zubayr ibn Awwaam mii rey nañ ko reyu ñaaw ndax moom dañu woon du wàcc ndax dégg na ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te néewu ko wàcceel kon moom du wàcc waaw ndeysaan mu lay taxaw xaalit mii daal di xool point stratégique bi nga xam ni moom la jullit yi amoon ba tax ñu gàñe leen wàcc nañu bàyyi nañu point ba nag wàcc nañu ci suuf ñu nga dem di xëccoo ay butin xëccoo ay damit jaasi di xëccoo ay fas yu rëcc xaalit jaar nañ ca kaw rey Zubayru ma fa nekkoon te point stratégique bi leen tiim jullit nag di leen dóor ay fit di leen dóor ay jaasi di leen dóor ay fit di leen dóor ay jaasi parce que fa ñu taxawoon ba jekku fa la Xaalid taxaw Xaalid mii tey dugg ci diinam diina lislaam bi tey lii liggéey na lu ko ëpp di xeex lislaam ba ñu damm ba ñu yonte bi sallallahu alayhi damm nañu bañ bi mu baraste ko surux ci pax mi mëntul génn xeer wi bërëngu tànc ko ci xeer wi sallallahu alayhi wa sallam keroog Umayya mi nga xamante ne moo Bilaal keroog la ko Bilaal rey ndax Bilaal da ko xool ci biir nit ñi mooy rey rek mu xa mu ne nii sama sama sang bu bon baa ngi nii kii moom ma doon mbugal te màkk daal ne ko oh, ma ya mu gestu rek mu tëbb ko xeej mu daal jaaxaan mu dem taxaw ci dënd ba jekkali ko taxaw ci naan allahu akbar allahu akbar allahu jaam rey na sang Xaalid mii Hamza ñeme wu ñuy jël Hamza di koy yéegal ci Xaalid Omar mii mu dugg ci diin lislaam dafa fekk quarante neuf personnes lañu booba adduna bi yëpp yëpp yëpp quarante neuf personnes ci dugg ci lislaam keroog ba Omar di ñëw fekk leen ca ca biir daaru alxam ibnu abil alxam ñuy nëbbatu di julli di wax li ñu ndànk ñu koy wax te ndànk ña ma ko wax ca kaw Omar moo ne an naa al xaq yaa rasulaay xanaa ñu nekkuñ ci dëgg mu ne ko xakañ ah, mu ne ko kon nan génn nan génn da kenn ko konkuumee ca la ñu génn dañu génn daal ni bilal noddal mooy jàmbar yi doon waxtaane bilal nodd mbokk mboole mépp génn ku daw ba ak seeg sa yet rek ak sa jaasi rek daal ni ah omar a ngi kii omar la kii omar la tabaarakallah wallaay ndeysaan mbokk yi kon omar mii ñi ko yéegal ca palaasu maanaam ñi moo yégal Xaalid ci place Omar ndax ba lislaam di jar bakkan booba Xaalid mii mi ngi ci yéefar yi Hamzatu mii bi lislaam di jar bakkan booba mi ngi ci yéefar yi kon bi muy tuub mën nañu wax ni moom tuubu intérêt mën nañ ko ko jàppee boroom xam-xam yi ñooy wax ñun dañuy nattale rek boroom xam-xam ñooy wax waaye daal bépp contact walla bépp xeex bu jullit yi doon xeex rek Xaalid mi bokk na ca ngir xeex lislaam ak xeex yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moom mënees na koo xam moo tax ci jamono Abu Bakarin Sadiq am na benn combat boo xamante ni jullit yi war ko xeex ak yéefar yi Abu Bakar Sadiq nommé woon Xaalid mii ibnul Walid mu war a nekk capitaine war a nekk capitaine pour mu diriger combat yooyu waaye bi ko Omar déggee Omar dafa ñëw folli ko dafa ñëw folli Xaalid ko déedéet bul fàtte mii tuubam tooyagul Xaalid mii tuubam wéragul Xaalid mii tolloogul fu mu war a mën a jël drapeau bu lislaam nag di ko diriger nan bàyyi ba mu gën a miir miiragul bi mu tuubeeg léegi yàggul kon Omar ibn Xattaab moom la ñu wax mooy faaruqul umma moom mooy tàggale dëgg ak caaxaan ndeysaan kon nag yiif yaa ngi noonu xaalis dugg na ci lislaam bi am na nag njàmbaar ak effort bu rëy boo xam ni moom mii def na ko kon ñu ngi fa yéene ñëw ak nag ci beneen xare xare boo xam ne nii di ngeen ci gis Xaalid mii ci biir waaye xare la boo xamante nii xare bu metti la xare bu tiis la te mooy xare mu'tata xare bu tiis te daw yaram moo doon boobu xeex ndax ñetti général yu cher ci yonent bi sallallahu ñoo ci faatu te mooy jaafar ibnu abdul muttalib ak abdullahi ibnu rawaha ak zeyd ibnu xaarisa ñett ñii ñëpp dañoo dee ci xare boobule jaafar rakk la ci yonent bi awakaam la woon ca najashi ndax jaafar ñoom ñaar seen ñaari bàyyee bokk bàyyi ndax abdul muttalib ak abdullahi abdul muttalib moo jur ali ibnu abi talib jaafar ibnu abu talib ali ibnu abu talib abu talib ak abdullahi ñoo bokk abdul muttalib mooy seen baay ñu bokk ñoom ñaar dugg ci diine lislaam gëmanoo lislaam waaye kere bi lislaam bi amee jafeñ-jafeñ ci màkk te ñuy yabaloon jullit yi leen dem leen Éthiopie rawale fa seen pas-pas ndax buura nga fa boo xam ne nii du tooñ du dimbali kuy tooñ te mooy Najaashi yu kere bi ko waa màkk déggee dañoo yónnee délégation bu fort jël alal ju bari jox leen ay giléem ak bax la egg foofee ca abisini ñu dem ci najaasi ni ko waa Quraysh ñooñu yónni ci yow ñii nga xamante ne ñoo ñëw fii jóge Màkka ay saay-saay lañu ay criminel lañu nit ñu bon lañu dañ leen a génne seen dëkk waa Quraysh nee nañu nga delloo leen seen loxo ndax jàmm rek la ñu mos ak yow te itam mosoo leen tooñ te mosuloo ñu laa tooñ kon ñi daw ñëw fi ay saay-saay lañu musiba yu rëy lañu def ca Màkka kon waroo leen làq najaas yu daal woote ni leen indi leen ma gan yooyu ñu ñëw bi ñu ñëwee fekk ndawi Quraysh yi ak ndawi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Jaafar mii moo jiite woon délégation jullit yi ñu ñëwee ñu ni ñii la ñu wax ni ngeen delloo ñu najaay suñu leen yéen ndeke ay criminel ngeen da lakk seen dëkk ba mu tàkk ngeen door daw di ñëw fii ndaka ñu wax loolu rek jaafar ni ko déedéet ndawal Quraysh ni ko waxul dëgg dëkk ba yàq nañu ko toroxal nañu sunu mag ñëpp te nag li ci gën a métti mooy nee na Muhammad moomu ab yonent la te yàllaa ko yónni nee na jaay su daan ne ndànk comme dugal ngeen ci affaire diine na leer daan ni ko jaafar nettali ma mbirum Muhammad moomu nan la demee jaafar ni ko ñun noo bokk maam ñun ñëpp dañ daan lekk midd di siif jigéen ñi di njaaloo di carte di waane ka karabaane caay-caay gu ne ko doon def ko ëpp sa doole moroom nga def ko ko ñu dem ba jun mi jamono yàlla yun ni kenn ci suñu biir di suñu xeet di waa Quraysh mu te dañu ñaawteef yooyu yëpp indi fi égalité doxal démocratie xamewul baadool ak buur xamul jaam ak sang def ci suñu xoli liimaan ak ragal yàlla lu rafet loolu la mag ñi mënta supporter moo tax ñu di ko xeex waa ji daal dawaat ñëw ci moom ni ko ñoom sax dañuy diingat Isa ak Mariama waa ji ne ko diingat mu ne ko voilà Najaasi ne ko wax ma lan la seen yonent ba wax ci euh, maryaama ko jaafara ni ko maryaama yàlla ñu nettali diggantem ak isa ci alquran nee na maryaama saay-saayul njaaloowul bonul yàlla dogal sañ-sañ ci moom def ci moom lu ko bëgg yàlla moo def ruux moo ëf ruuxam ci moom mu jur isa ibn maryama isa juddu amul baay te mu am yaay inna laa ala kulli shay'in yàlla man lépp bi nga xamante ni alquran nettali na bi wa mbokk yee ñëwee ni ko yaa uxta haaruna maa kaana abooki imraa sawin wa maa kaanat ummuki baxiya yow de sa baay beewul sa yaay beewul anne la ki haazaa fan nga jëlee doom ji dafa ne leen kallimuhu waxtaan leen ak moom inni nasartu yomal li rahmaani sawman man kat tey dama fas yéene woor da dama fas yéene woor wax liir ba moo ni inni abdullah inni abdullahi jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan wa awsani bi salaati wa zakat ma dumtu hayyan ndaka mu wax loolu rek isaa ni man da jaamub yàlla laa yàllaa ma def yonent yàllaa ma sant julleeg woor sama giirug dund lii la ma yàlla wax najaas ni ñokket jóg taxaw ndawal Quraysh daal mu ni koy eh, Muhammad mii du du yonent ab sàmm la mu ni koy eh, noppil yow Isa serpent la woon kon métier kenn du ko xeeba nit noppil te nga wax lu ñu mën a dégg xam nga bu gis nga dëgg c'est très important boo dee kilifa da nga ñemee dëgg nee na mu ne ko lii lii la Muhammad wax ci Isa mu ni ko exactement lii moo nekk ci Bible lii moo nekk ci Torah toutes les religieux euh, dina religieux révélé tous les tous di tout mu tuddati toutes les religions yépp ñoo bokk benn kàddu gi li ñu wax ci Isa ak Maryama li ñu wax ci ni mu juddoo ñoom ñëpp ni la demee suñu ñu ka kii de li wax mooy ñun li ñu jàng suñu téere yi xamul men di xamal yéen mucc ngeen mucc ngeen piccum jàmm moom leen fi dalay ngelawal jàmm moo leen fi uppee dara du leen fi dal tant que yéen ngi ci territoire najaasi yu dara du leen fi dal jour boobu bu ñuy wax loolu jaafar mii moo nekkoon moo nekkoon avocat yonent ki ci topp mooy zeyd ibnu xaarisa zeyd bi pour wax la rek ñoom ni ñu seere zeyd jaamu xadija la woon zeyd li ko tax doon jaam du dara lu dul ëpp doole caay caay gi nekk ci lenn ci ay arab noonu rek la dañ dañu dañu yaay ji la àndaloon ba ñu dayeg genn caravane caravane boobu dàq ñi jàpp ñi jàppale ko moom Seyd bi ñu ko jàppee jàpp ko jaam topp marché yi ba jaay ko gis xaalis jaay ko ndekk ki ko jënd am na lu mbokk bokk ak Xadija càmmiñam la moo ko jënd bi mu ñëwee mu ko ñu ne suñu tukki bi metti woon na trop am naa ci benn jàmboo ne jënd loolu naa la ko ci xam nga rek comme ni ngay jënd ab ak di ko jëndee morso ñoom noonu la ñuy def mun ko jënd naa la benn jaam daal yi naa mën na liggéey mën naa la koo may euh, nga nga yor ko ci kër gi mën na la topp mën na la topp yenn liggéey ñoom seen pratique bi ñu doon def baaxul moom jàpp jaam rekk jaay mel na koy jàpp ay xari jaamur ci àll bi jaay xoolal ma ji wax Xadija nekk ak Zeyd mi nekk ak moom nekk ak moom nekk ak moom ba keroog sang bi alayhi salaam takkee moom Xadija kii ne ko euh, kii Xadija ne ko bëggatuma moom dara ñu di ma moom léegi lii mbir tey mbir mooy xale bii di Seydi rafaatal naa la ko jox naa la ko may naa la ko ngay ànd ak moom mu di la dimbali di la jàppale ci yenn liggéey yi mën a ci jàppale loolu moo dugal Seydi ci loxo yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi yor ko yar ka yaru nawle téye ko di ànd ak moom ba ñu naan Zeydu doomu Muhammad doon nañu ko tuddee Zeydu ibnu Muhammad sallallahu alayhi ndax taxoo gu mu taxoo war moom ak nawloo gu mu ko nawloo woon moo tax bi ne ba Zeydu màgg yonent bi sallallahu alayhi wa mu jënd ko may doom bàjjanam ku ñu wax Zeynabu bintu Jaxsh Zeynabu bintu Jaxsh boobu mayoon nañu ko Zeydu mii ibnu Xaaris waaye sëy ba neexuloon dara sunu borom nag bëgg xamal lislaam bi ak jullit ni fils adoptif duma ko nangu te kenn du ko doxal ci sunu milieu mu ne ko kii nga takkal Seydou ndaw si dana bañ du ko nangu te dana fase dina ko fase te bu bu ko fasee yoo koy takk moo tax yonent daan wax Seydou am si saw jëkk téyel sa jabar téyel sa jabar rek bu ko bàyyi téyel rek muñal rek waaye Seydou bu duggeek ndaw si ci biir néeg rek ndaw si ne war na la kay war na la sa ñuulaay mel na këriñ yow xam nga ne moom yow xam nga yu lislaam la tax a fuuy yow nga yow sagarub jaam rek amoo looy xalaat ci man naan man naan maay yow yow ko sa yow ko sa jabar yow yow ko sa jabar yow làqu xam nga rek mooy loolu daal <laughs> doyoon na waar daal waaye Muhammad sallallahu alayhi wa li mu doon suuraale mooy koo xam ne jàpp nga ne sa jàpp nga ne sab jaam la moo fase jabar nga takk ko mbamba moomu du ko mën du ko mën a supporter loolu nag mooy convénient ak jafeñ-jafeñ bi nga xam ni commencé woon na jee feeñ ndax doom sama doom sama doom sama doom ba naan doom Muhammad nga takkal ko koon sa doom bàjjan la pour bëggoon ko dugal ci famille bi ndax lislaam noonu la lislaam xamul géwél lislaam xamul ñeeñu lislaam julit la xam loolu la bi sallallahu alayhi doon doxal foofu kii nee nañu jaam la yonent bi sallallahu alayhi mënul weddi boppam di doxaluk njaam ci biir lislaam bi wala mu doxaluk tëgg ak a ber ci biir lislaam bi moo tax kii ñu ni jaam la mu jël doomu bàjjanam bu jox Zeynab bint Jahsh daal di koy may kooka ne moom moo dund affaire aada li ko wax léeg-léeg mu wax ko wax ju doy waar waaye moom it sang bi alayhi salaatu salaam li ko ci nar gën a choqué mooy li ko yàlla na na ma takkaatal xale bi sa jabari doom la takk nga ko sëy ba jeex na baay bi takk ko li ñu bëgg a dàq foofu rek mooy baay fils adoptif loolu lislaam xamu ko te nanguwu ko fiis adoptif la lañ doon dàq moo tax sunu borom di wax ne falamma zawa falamma qada zaydu minha wataran zawajnakaha likay laa yakuna bayna agniyaayi bayna fi adi fi adi agniyaayi xaraj moom la yàlla wax ni zeydu mii dana bàyyi xale bi te bu ko bàyyee yow mi yaa koy takk zeydu bi moom la yónni saa dem boole ci ñi mu désigné ñu nekk généralu guerre xanaa kon nawloo ñëw la moo tax mu ni ko ba mu takkee alxuraan wax naa la alquran barki démb moom képp ngay gis aw turam alanan fang ci biir kaamil bi mooy zeyd te zeyd bii borom der bu ñuul te nee nañu jaam la waaye du jaam ci cosaan dañ leen ëpp doole jàpp leen jaay leen waaye du ñu jaam ay gor yu set wicc lañ moom zeyd mii nag moom la yonent bi sallallahu boole ci ñi mu tànn te itam ci xare bii ci la dee ci lañ ko rey muy xare mu kon wax naa la Abdullah ibn Rawaha moo ci des ab laay Abdullah ibn Rawaha mii mën naa la ne moo doon géwélu yonent bi sallallahu bu fekkee ñeme nañu wax géwél bu fekkee nañ koo wax ci lislaam mën nañ wax ne mooy géwélam ndax moo ko daan tagg moo ko daan soññ di la taxaw mu joxar bi ko wax ci moom ay mbaax wax ci moom ay modèle yu rëy te da daan neex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan neex lool ndax bàkk nit ak wax yu baaxam motiver ko dana tax mu gën a góorlu te dana tax itam buy xeex du daw te du dellu ginnaaw arab yi amoon nañu habitude bu doy waar bu ñu mësaan xeex yi dañuy yóbbu seen jabar yóbbu say doom yóbbu sa alal jabar yi téye alal ji doom yi ni sa ginnaaw boo dawee ñàkk aw woy ba abadan ndax sa baay dafa daw loolu dee leen ko gënal boo dee sa jabar donn sa alal ak say doom waaye daw ginnaaw moom doo gis loolu moo doy waar moo tax ñu fi nii sunu équipe nationale bii bu doon ne bu ñu dem ñu yóbbu seen soxna yi yóbbu seen doom yi mettre leen daane bonne condition ñu taxaw ci ñu taxaw ci tribune bi di seetaan dana jam jël yoo xamante doo ko nangoo daanu dana leen nangu fot yoo xamante ne doo ak carton yoo xam doo ko bëgg a jël ndax sa doom du taxaw di la seetaan gis ni tey bisu xare la wala bisu reyante la ngay dellu ginnaaw kon na yif yaa ngi noonu kon ñu ngi door xare xare mu tete boo xam ne nii xare bu doy waar la te it yónni bi sallallahu alayhi wasallam cee ñàkk ñetti nit ñu cher ci moom muy jaafar ibn abdullahi ibn rawaha ak Zeyd ibnu Saabit ñii ñoo ci dee ca xare ba Xaalid mii nag moo jëloon drapeau ba incha allah dinañ ci ñëw yéen ak ak leeral ak teqantal kon ñu bàyyi place bi sa oustaz Alioune Sall mi ngi nii toog bu soobee suñu borom mu ñëw yéen tafsir bi daane leen jox sëñ Mbàkke Sylla suñu technique bi suñu mbokk Pape Ablaye Dieye moo ci nekkoon seen mbokk oustaz Alioune Mbaye moo nekkoon ci waxtaan wi asalaamaaleykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu